olof ñu ginnaaw bu ñu nuyoo sëriñ bi di ko ziyaar di yóbbante nuyoo bi sëriñ Moustapha moom mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi mu tegal ñu ko si njaboot yëpp ñu nuyu itam di ziyaar sëriñ Cheikh Thioro sëriñ Cheikh Kajoor sëriñ Balala ak ñi fi nekk ñëpp di nuyu meeru Mbacke Kajoor ak meer yi fi nekk ak au conseil des collectivités territoriales yi nga xam ne teew na ñëpp ñu fi teew daal chef de service yi ñëpp ñu leen di nuyu ndax dañ fi daje tey ci bërëb sell yi Mbàkke Kajoor sëriñ bi fàttali na ko ci ay waxam muy bërëb boo xam ne wax na ko ci wàllu cosaan ci wàllu aada ci wàllu diine en lu bëri mën nañ ko fi jàngee tey ñu daje woon fii suñu borom dogal ñu teew fi tey ci turu préfet département Kébémer Mario Kane nga xam ne ngant moo ko fi teree ngir ñu waxtaanee waajtaayu màggal Mbacke Kadior 2017 muy Jumaadal Wulaam ñu ko sëriñ bi waxee. en perspective CRD bi nga xam ne gouverneur war na ko def semaine prochaine ñu àndoon ak chef de service yi nga xam ne ñu ngi au niveau département. au niveau région ak ba tey ñi nekk Darou Mousty ànd ak monsieur le sous-préfet de Darou Mousty Mamadou Ly ñu doon def waxtaan boobu point yi nga xam ne sëriñ bi nangoon na ñu waxtaanee ko yëpp waxtaanee nañ ko service bu nekk li ñuy xaar si yow itam waxtaanee nañ ko ñun ñëpp déggandoo nañu engagement yi nga xam ne jël nañ ko fi buñ fi jógee itam incha allah suñuy kilifa lépp luñ fi tënk dinañ leen ko jottali. itam fas yéene topp liggéey yi ba keroog ñuy àgg ci màggal ba pour que suñu may ñu ci ñaanu itam sëriñ bi ñu comme at yi passé mu may ñu mën a organiser màggal bu màcc mucc ay organisation màggal nga xam ne muy côté sécurité sëriñ bi insisté na ci muy sécurité muy côté gendarmerie sécurité ba tey alimentaire muy élevage muy waa service d'hygiène muy commerce en tout cas secteur yëpp ku nekk. na ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte bu baax ci seen taxawaay ci màggal gi tàmbalee ko ci su préfet ba ci yéen préfet soxna Sofi jàll ba ci gouverneur ndax saa su màggal gi jubsee nii la ñuy àndee waxtaan xool point yi nga xam ne suñ ko waxtaanee jëfe ko magal gi dina baax ngeen jot ko ci gouverneur jot ko ci kilifa yi ministre de l'intérieur premier ministre ba ci président Macky Sall waaye ñuy sant bu baax ci turu sëriñ bi di ko yóbbante kilifa yi rawatina président Macky Sall ndax magal gi weesu daaw lépp lu ñu fi daan def dañ ko yokk boo leen gisee muy lépp lu ñu fi daan def dafa yokk bi magal gi jubsee ñu bind ko lettre mu tontu ñu xamal ñu ni joxe na ndigal premier ministre lépp lu ñu war a def ci magal bi incha allahu dina ko def bi magal bi jub seen accès mu jël premier ministre Mohamad Ibn Abdoulaye Nione yabal ko fi moo ànd ak lu toll juróom-ñaari ministre ñëw yendu fi jot jotli ay teraangaam ak cantam ci sëriñ bi kon loolu ñu ngi ko ci sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal e, sëriñ bi itam di sant njabootu boppam gi mu njabootu Cheikh Mawlin mu njabootu muy képp koo xam ni yaa ngi dugal sa ci màggal gi ni ñu ko waxee léegi sëriñ dafa ñu tànn rek teg ñu ci kanam waaye ñun lu néew lañ ci def waaye ñii ngeen gis ñoo ànd ñu ci liggéey bi ba lépp lu ci mat rafet ci ñoom ñoo ko def kon sëñ Moussa di sant bu di leen gërëm dëkk bii nag madame la préfet moo di fuddu Touba Mbacké Kadior moo la mag ndax ci atum 1880 la Momar Anta Sali bàyyi ko ñooro ci Maba Jaw ànd ak Lat Joor li mu ànd woon ak Lat Joor itam Lat Joor sàkk woon ci Maba Jaxu ku koy jàngal lislaamu ak di ko àtteel bi mu ñëwee kër Amadou Yàlla moom Momar Anta Sali mi ngi nekkoon dëkk bi ñuy wax Pata waaye mu jigéen euh, pencu mbuur bi moo wax ni ab sëriñ ak buur mu ñëw bokk am penc sàkk ci moom ñu wutal ko beneen suuf ci lañ ko indee fii ci Mbacke Kajoor mu sañ fi 1880 doon fi jàngale mu nekk daara joo xam ni ñu bëree bari jaar nañ fi ci suñu bokk sax tijaan yi ku mel ni maam Abdou Cissé maam suñu Moustapha Cissé Pire maam Abdou Cissé euh, ñoom ñëpp ak ñeneen jaar nañ fii doon fi jàng ba fi la wàcc liggéey ñu yóbbu ko fi ci Derklé Cheikhul Khadim dese daara ji fii la ko sayyiduna muhammadin ali salaatu wasalaam jëkk a feeñoo itam ndax fii la waxaat ne shafahani rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallama bi xawlihi rabbi asaabaka bi himmatin wala turam mi dar sifaat mu ne yonente bi ali salaatu wasalaam feeñu na ma tey wax ni ngir mam aw nag saxaaba yi naa ci aw ak yéen kon fii la jëkk a gise sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ab taawa itam soxna Fadja fii la gane àddina yoonu murit fii la juddoo ci njëkk a ci fii la ci moom muy sëñ Adama Gueye mi ngi ci armée yi fii ci Mbacke Kajoor maam Cheikh Ibrahima Fall fii la ko fekkoon maam Mor Anta ki mujj a gis ci ay doomam waxuma caatam de ki a muy sëñ Cheikh fii la gënee àddina waaye sëñ Massa ci jamono Cheikh Sidi Mokhtar nga xam ne mooy xalifa Sall moo itam fii la gënee jamono ci Mbacke Kajoor Cheikh Mouhamadou Lamine Bara 1913 ku tedd ki indi ko fii mu fiy liggéey si di fi jaamu yàlla fekk si ni ma ko waxee mbokk mu baax mi maam Amar Fall Mbacké mu am këram juróom-ñaari weer ba defar këram soppeeku ba mu fay génn daf ni amu fi dara lu ma fi nekk yëpp te sëñ Touba ba mi koy indi sëñ Amar dañu ko maa lay koo xam ne ku naqaree nekkal la sëñ Amar ni ko man de mën na maa nekk ak moom ndax du ma xëccoog moom dara lu mu ma bàyyee ko mooy waajuru sama maam ju ñaaw yi sëñ Cheikh Aliou ànd bu rafet boobu moo nekk nii ba tey kon soxna si loolu mooy Mbàkke Kajoor foofu la ñu wootee màggal nga xam ni daara la dëkku aada la dëkku cosaan la waaye dëkk bu ñu barkeeloo la Cheikh Mawlana Bara fi la nekk di liggéey 1913 ba 36 mu wàcc fi liggéey yóbbu ko Touba e, ñi nga xam ne nag ñoo jaayante woon ak sëriñ bi bi ko yonente bi ali isra wasalaam feeñoo tolloo ci ñeent fukki góor sëriñ bi bàyyi ko Mbàkke Kajoor dem ñibbi Mbàkke Bawol ba sàcc Daaru Salaam sàcc sàcc yi mu sàcc yépp ba yàlla jox ko Cheikh Mamadou Moustapha jox ko Cheikh Mamadou Fadal bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gane àddina 1891 dafa woon ñun ñëpp ñuy ñëw ne leen li ngeen di sàcc suñu borom lépp gan gi ñëw indi na leen ko mën ngeen a yeewee ko bis boobu nga xam ne bisu tawféex la di bisu faj aajo di bisu ngëneel bis boobu la Cheikh Sidi Makhtar and ak njaboot di ko moy mooy juma do uula di màggalu Mbàkke jor insha allah kon li nga xam ni ñun mënatul ko suñu bop sëriñ bi woote ko état man ko ngir ñew and ko ñun ba lepp di rafet di leen sattu ba di leen gërëm di leen ñaan di wax rek sécurité ñu gëna farlu ni ko sëñ bi wara sa su nek ndax day bëgg ku jóg di magal ci ñew ci jamm nek fi ci jamm delluwaat ci jàmm ak salaam moo tax ñu bëgg bépp oto boo xam da nga surcharge ñu wàcce la ñu ci kaw bépp képp koo xam da yor deux routes deux ñuy wax jakarta duñ ko maye mu ñëw ci màggal Mbàkke ak yeneen ak yeneen yëpp yu bëri su ko defee yeneen yi nga xam ne wàllu sécurité alimentaire alimentaire la itam ñi ko yor saytu ñu was waa service d'hygiène waa élevage service commerce ñoom ñëpp ñu taxaw waaye madame le préfet ñi lay sant di sant suñu préfet bi Mamadou Ly di sant bu baax di leen gërëm di yóbbante ay cant ak ngërëm di sàkku ci yéen itam bu soobee yàlla suñu soxla wax ni altine bi ñuy ñëw su fekkee mën a def CRD incha allah ñu def ko ñu ngi sant ñëpp.